mbokk yi dal leen ak jàmm gone yi ñuy faat si biir réew mi xëy ëlëm yéenekaay bi di Vox Populi mu ngay xayma naan lu yées atum yàlla juróom benn tu tànk faat na leen si biir réew mi ba sa mujj nag ni ki démb la mu xewee si diwaanu ñaagis kanteen foofu si diwaanu Ziguinchor gone gu jigéen gu am ñeenti at du wuyoo si turu Maymuna Bari la ñu faat maanaam dañ koo rendi bàyyi ko sa àll ba yéenekaay bi naan mbir mu nu mel nag mu ngay gën di yaatu fii si réewum Sénégal fa deret ja gën a wasaaroo nag moo di Mbour Parcelles Assainies Malika Ziguinchor ba diwaanu Touba. Touba dëkk bu ko soriwul dara di ñel la xaar ab doom la mujjee ni ki démb ginnaaw bi nga xamante ni bii benn waay bu xel ma neexul moo tal lu tolloog ñaar fukk ak juróomi néegu sëngal yoo xamante ni bii yépp si ab doom la ñu mujjee waaye tamit sàq ma ak li nga xam ne moo doon dund nga ñu doon dundee ñoom waa dëkk ba lépp mujjee si ab doom ginnaaw boo xamante ni bii tàkk na ba jeex tàkk ndax dialogue national bi ñu sumb si biir réew mi it du mujjee ab doom ak lu si man di am seen ndaje lu njëkk nag ñoom comité de pilotage bi si xët-xëtloo ak werante gu métti la dooree buñ sukkandikoo si yéenekaay bi nga xam ne moo di Les Échos naan boobu lay ndaje nag Famara Ibrahima Sagna ak ñi nga xam ne ñoo di l'opposition bi déggoowuñ dara si ay kàddu te leen waralu waralul coow la lu dul ñeent fukki membres yu yees loo xam ne dolli nañ leen ci boobu le comité de pilotage tax l'opposition bi merci ba futtu le naan l'opposition bi kay ñu ngay bu baax a baax Fama Ibrahima Sagna di ko critiqué ginnaaw ñeent fukki membres yu yees yi nga xam ne dolli na ko ci biir comité de pilotage bi moom Fama Ibrahima Sagna ci biir yéenekaay bi mu ngi naan man ci boppam maa sàkku ñu dolli ñeent fukki membre ginnaaw bi nga xamante ne bii gis na ne ay soxna dañ cee néew mu ngi naan nag bu fekkee ne am na ko leen bëgg a joxoñ baaraamu tuuma bu na ngeen ma jox xar bi ndaxte lépp mën a tax laas yéene kaay naan Famara Ibrahima Sagna nag ni mu dooree moom ab dialogue national am dara baaxu ci maanaam il démarre mal son dialogue noonu la ko yéene kaay bi di L'As Quotidien xëy fësal ci xëtamu njëkkam ginnaaw ba mu gisee xët-xëtloo gi nga xamante ni bii Famara Ibrahima Sagna ak l'opposition bi amal nañ ko loola waral nag source a jàpp ne boobu la dialogue national werante robinet mbedd dëgg lay nuróol ginnaaw bi nga xamante ni bii moom Famara Ibrahima Sagna mu ngay tontu ki nga xam ne moo di Mamadou Lamine moom mi doon wax naan fukki million bis nekk la ñuy jox comité de pilotage bi moom Famara Ibrahima Sagna di seetal musta wax ak Mamadou Lamine Diallo te it loolu nga xam ne moom la teg ci ab deram dara wéru ci maanaam moom sàkkul koppar te xaarul dara si bii la national moom mi demul si dialogue national bi ak ab partem di parti démocratique sénégalais maître Abdoulaye Wade tegati na beneen jéego si wàllum politique maanaam dakkal na ab àndam ak front de résistance nationale bi nga xam te ni bii moom la opposition bi ñu si bëri daal di bootu boobu les front nag maître Abdoulaye Wade bu ñu sukkandikoo si Vox Populi dakkal na seen ànd ak ñoom ndaxte ñoom nee na ni ñuy doxee dalul am xelam maanaam dafa jàpp ne dañoo jege lool ak ñi nga xamante ne bii ñoo di pouvoir bi waaye tamit seen doxina dëppwut gis-gis ak maître Abdoulaye Wade tax mu dakkal boobu lee ànd la seen kay xëy di dëggal boobu lee xibaar naan maître Abdoulaye Wade kay retiré wu na ci front de résistance nationale bi ki nga xamante ni bii it moo di Makhtar Sourang moom mi coordinateur boobu lee front moom mi ngi naan comprendre wut nag doxali li nga xam ne waa PDS ñu ngi koy doxalee ndaxte moom gisoon nañu ne maître Abdoulaye Wade demoon na ci palais seeti ki nga xam ne moo di Macky Sall te benn yoon ne dafay complot wala mu indi jeexi jaax ak ñoom seet seen xel tax li nga xamante ni bii moom la Abdoulaye Wade yëkkati teg seen der ñoom mënuñu ko comprendre le soleil yéen moom li mu xëyee moo di exploitation pétrole bi fii si réewum Sénégal naan fi nga xamante ni bii moo di Sangomar nag exploitation bi dinañ ko doora maanaam lépp yëpp na ngir ñu mën a exploiter boobule lañ koy xaar ak ay baril pétrole brut yoo xam ne dina toll si ñeenti téeméer ak fanweeri million baril yoo xam ne ñu ngi koy réewum Sénégal gendarmerie nationale bi fi nekk nag général Tine moom mu ngi say indi ay soppandi bu baax a baax buñ sukkandikoo si yéenekaay bi nga xam ne moo di enquête moom mu ngi naan nag dafa sàmbuli dëgg nag fi nga xam ne moo di gendarmerie nationale ginnaaw bi nga xam te ni amal na lu tolloog juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari mutation foofee sa topp management bu gendarmerie nationale waaye lu tolloog ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ñaar ci def na ko si biir troupe yi yoo xam ne def na ko ngir jublu joxaat état major bi dayo bi nga xam ne am na ko dëgg si l'armée bi ak taxawaay bi nga xam ne ni bi war na ko taxaw si biir gendarmerie nationale joxaat ko gëddaam ba mu mat sëkk jeexal wàllum tàggat yaram ak suñu làmb mi xëyee ki nga xam ne moo di Baye Ndiaye mi nga xamante ni bii mooy ànd ak mbërum géejawaay bii di Balla Gaye numéro de moom mu ngay addumaan seen mbër nag jamono ji def na ab tànneefam si ki nga xam ne moom la war a janool diggante Bombardier Tapha Tine Boy Niang 2 ak Gris Bordeaux moom mu ngi naan Balla Gaye 2 def na ab tànneefam ba noppi moom Balla Gaye 2 bàyyam di Double Less mu ngay wax ci biir yéenekaay bi di l'Observateur mu ngi naan nag bu fekkee ne lamb Ama Baldé ak Modou Lo taxaw na moom dina def lépp lu mu man ba jàppale ki nga xam ne moo di amaa Baldé ba mu jëlee ndam ci boobule combat yooyu les kàddu Double Less mu ngi fës ci xelu njëkku yéenekaay bi nga xam ne moo di l'observateur record moom fësal si xëtam mu njëkkam ki nga xam ne moo di Siteu moom it si wàllum làmb ji mu ngi naan làmb ji damaa soxla dëgg te it mu ngay dig ñi nga xam ne ñoo di ay fansam maanaam ñi nga bëgg naan leen Siteu dellu si na dellu si ak doole joo xamante ni bii dina tàng lool si Papa mi nga xam ne moom la war a dajeel moom Siteu jërë ngeen jëf mbokk yi dig daje ba ëllëg incha allah